sans bis bi ci gaaw bi ñu génn ñenn si ñun ci ci sunu ñooñ dañoo woote te dañeel projet ni dañuy dañoo defal du noortelu paasoo si ci politique ci at mu bees bi ñun nag war ci sunu parti dañu bat boo xam ni dañoo dañoo dañoo am dañ dafay hiérarchisé normal dañ cee toppante balaa kenn kenn def dara kuréel ga nekk da nga ci waxtaan ak ñoom lool donte ñoom ne nañ UGIDA la ak UDEPS muy ay bànqaas yoo xam ni dañoo lëkkaloo ak par parti UGIDA ay ndaw la yu ak parti bi UDEPS ay jigéen la yu lëkkaloo ak par parti bi am nañ seen cëggal bopp wante nag ci politique parti bi la ñuy wéy ci ci doxalin parti bi la ñuy wéy looloo nekk nekk ci seen seen statut ñoo ñay àllu bàyyi parti bi fii dem doxal dem doxal seen bopp te réunion ba liñ ci gën a naqari drapeau parti bi boo fa teg ndax loolu parti bi boo fa teg ak slogan parti bi ak symbole parti bi ñu ne dañuy wax ne dañuy jàppale président Macky Sall ci wate bi ñu ñëw doxin woowu nag ñun doxalin bi moo ñu métti te ànduñu si ak ñoom parti bi buñ ci àggee yooyu woote waxtaane ko ci sunu biir lu ñuy jëflante ak Macky Sall ci waxtu bi yow ñu def ko wante du ñaar nit ñett nit du ñu refee seen cëgal bopp di wax ci turu parti yëpp lii moo ñu métti di wax ko waa Sénégal yi yëpp dégg te ñu tey musul doxee nii bu ñuy wote bi kay conférence nationale mooy wax dina la taxaw ci wote bi mu dal comité central la comité central wax mooy am bureau politique bi ak secrétariat bi wéy la ko wante ñaar nit ñëpp nit. ñooñu lan jàng bi amat xamal moo leen gisee ñu woo Mansour Sy te Mansour Sy ñàkk na ci parti bi am na xam-xam xam na yoon wi xam na lii mu def teew ko fenn ñoom nga nag naqarlu di ko ñaawlu dañuy wax secrétariat muy direction parti bi la taxaw ci lii lii jëmul kër te taxaw ci parti bi te gàcceel rek militant parti bi yëpp à travers le Sénégal. ñu bëgg ci surtout cadre parti am na sax ñu ngi démissionné ndax taxawaay boobu di naqarlu mbir moomu ndax ne parti bi musul doxee ñu ci dina la bëgg def waa Sénégal yëpp yëpp ko ay nit ñu jaay àllu ñoo ko def te coordination communale bi ñu leen di daan ba fi seen tànk bi mën a yem wasalaam vous de se réunir. Je dois vous faire expliquer la position de la coordination communale vis-à-vis manifestation qui s'est passée la semaine dernière ici à Thiès. C'est Mamadou de la coordination communale. Mes camarades sous la direction de Amath Camara se sont réunis à Thiès, accueillis le plus massif dans un outil toujours qui reconnaît rentrée politique du bourse Massouf. Avec le déficit d'outils et digital. Et il y a ça pour et lui, il sait les déclarations fusent de nos Donc la coordination a l'obligation de se prononcer par rapport à cette situation. la coordination communale condamne ces agissements sectaires et demande aux camarades qui se sont mêlés dans, cette, dans cette organisation de se reprendre et de rentrer dans les rangs. L'UDEFS et l'UJA sont des organisations affiliées. Leur autonomie ne pas aller jusqu'à organiser des manifestations en dehors de l'instance communale Le camarade Amad, même président de la coordination régionale, n'a pas le pouvoir d'organiser une telle rencontre à Thiès au nom du parti, avec les drapeaux du parti, la couleur du parti, le symbole du, parti, sans l'avis la coordination communale. Donc nous nous démarquons totalement de cette organisation-là. Ils ont annoncé dans les affiches, dans les drapeaux et autres, que le PIT soutient la candidature de Le, aucune instance du PIT ne encore prononcée à ce sujet. Donc, sa déclaration, sa démarche est condamnable. S'il peut le faire en solo, il ne doit pas utiliser les instruments du parti. Le parti ne s'est pas encore réuni sur la question. Nous allons encore Et les statuts du parti sont clairs là-dessus. L'élection présidentielle a été discutée à conférence nationale. C'est la proposition de la conférence nationale. Voilà, une décision du comité central, administrée par le bureau et le secrétariat. Et ce que nous avons vu, Ça, c'est j'ai passé dans le parti depuis 1957 à nos jours. Le PIT est un parti discipliné et organisé. Le moment venu, on posera ouvertement notre participation aux élections Il n'appartient pas à un groupuscule dans une dynamique sectaire de faire des propositions en ce sens C'est pourquoi la coordination totale à fermement ces agissements et demande à la direction du parti de prendre les mesures qui s'imposent. Je vous remercie. Voilà, peut-être une